chers internautes Sénégal 7 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax baa di am mbégte di taxawaat fii ci plateau bi nga xam ne mooy Sport 7 di dalal rek ki nga xamante ni mooy Moustapha Guèye ki nga xam ne mooy deuxième tigre de Fass papa ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu maa fii di la ziare di nuyu mbokk Sénégal 7 yëpp tamit oui. père ñu gis ni nga teewoon fi ci waxtaanu Ama Baldé bi ñu am occasion jël la ci ñu gis violence bi am ci làmb ji foofu la ñuy tàmbalee dimanche bi passé gis nga nuñ def stade bi encore lan nga ci wax. Hmm. c'est malheureux c'est que ñu am bijou mel ni Arène Nationale yàgg ko jooy ñu teg ko suñu loxo eh, suñu doom yi ñëw di ko saccager comme ça mais violence fu mu am rek dafa fekk ñi nga xamante ne ñoo war a taxawee loolu dañ taxawaay bi ñu ci wax a taxaw dañ taxawul ñi koy def dañ leen war a saisir. yëfu Sénégal la Sénégal ko moom ñëpp ko bokk mi ngi mel ni encore nga dem assemblée nationale bugg ko yor sa bulldozer di mbëkk muy daanu alkaati bu ñu la fekkee di nga fanaani ñi nga xam ne dañuy yéeg ci kaw tribune bi ñu daan seen mbër ñu leen naqar yi ñu daaj sees yi seen naqar boobu ñu leen daane seen mbër la ñu war a booleeg ñoom tax a yóbbu ci police bi atte leen devant devant devant le procureur man Moustapha Guèye su ma taxawoon nii tey jii nit ñëw dóor ma kurpañ ubbi sama arcade damay dem police ñu woo ko atte alal réew mi nag ku ko jël di ko saccage loo xamante ne sawaay dafa jafe muy fu ñu bëree yàgg nañ koy jooy yàlla teg ko suñu loxo ñun sax amuñu chance su bëri arène nationale suñu doom bi amee chance bu bëri ko dañ ko war a sàmm bijou la dèjà lamb bu amul rek mbër bi ni da ngay gis mbër yi di wër gauche di wër droite fu nañu dugg fa di lijjanti nuñ ci mës a génnee te place boobu ñu koy defee nag mooy mën a dimbali ba ñoom ñu am seen métier comme ni ko ministre bi amee comme ni ko député bi amee comme ni ko tout un quelqu'un amee ñi koy yàq nag yaa war a am na ñu fi identifié ba pare jàpp leen mais bu ñu bu ñu leen farandoo commissariat le lendemain sur le lendemain y aura beaucoup d' intervention ñu bàyyi leen dem il faut que ça cesse les fauteurs de trouble la di téye ñi nga xamante ne dañuy def li nga xamante ne du yoon dañuy war a jàpp yóbbu leen ci kaso bi da daan sax dajji ay chaise mais finalement bu fekkee bu ñu la daanee nga dajji ay chaise bu boo daanee dajji ay chaise finalement làmb ja arène nationale bientôt dans une année. da ngay gis dootul amati toogukaay yu rouge yu rafet yooyu yu vert yu rafet yooyu jaune yu rafet yooyu bala may dee ñu ne nañ bàyyi ñu daaj yëpp ñu toog ci dër bi mel ni mel ni amateur bëggul dara foo ci dem ci àdduna xool MMA bi Sénégal di sikki di ko critiqué gis ngeen ay cinquante mille personnes ko seetaan bien ajusté bien normal ku nekk toog sa place supporter sa euh, ki nga bëgg supporter mu jeex nga gagné kontaan ñibbi ñu gagné la nga taal sa oto ñibbi mais 16 yi ñuy daaj nii di ko def laa bëggoon xam pour lan la. wala boog nañ jël et puis fam sax lu ñu war a waxaat moom mooy stade bi foog moom am benn gérance stade arène national nationale dafa dégueulasse bu ñu bëree di nga toog ba mercredi jeudi boo fa rombee da nga naan c'est pas possible ndax lii mooy bijou kon loolu est-ce que li koy wax noonu li ko li ko waral est-ce que ñoom seen taxawaay dafa des. li ko waral nag moom mooy encore ba léegi làmb ji bu ñu fàtte ne teguñu ko ci loxo seen CNG pour mu gérer stade bi. teg nañ fa ku koy gérer. mais nañ mais logiquement ñun li ñu gënal mooy le CNG gérer ko. arène kese la pour bëre arène national le noo nom bi daf ko indiqué ñu yàgg ko xeex am ko mais boo amee instance dirigeante bu fi nekk ñu koy wax CNG le président s'appelle Bira Sène ak ñi ko àndal yëpp ministre bi teg leen fa mais nee jox arène bi ñun ñu ko gérer teg fa ay garde ñu ñu ñu def sécurité bi teg fa ñuy nettoyer mais les toilettes sont dégueulasses bu lamb amee doo sax bëgg mën a traverser dugg ci biir toilette bi même bu lamb amul boo duggee di boo duggee pour dem toilette da ngay gis ne ici c'est pas entretenu plus que ñuy dem nag muy gën a yàqu un jour nga jékki-jékki chaise yëpp jeex après lamp yëpp fay déjà tableau magnétique boobu war a tàkk tàkkul ba léegi te kenn du ci wax dana nga defal ne bijou boo xamante ne ay milliards nga ci def. 32 milliards. ba pare mu am tableau boo xamante ne war nañ fa war a mbëri ñi fay wane résultat yi ci fay wane heure yi comme ay tableau yi nga xamante ne ci lañ agité mun doon ba pare mënul tàkk boobu léegi te tàkkoon na pourtant nañ ko taal defaat defaat ko valeur bu làmb ji bu jeexee ci saasa bu làmb tasee dañ ko war a nettoyer ci saasa war nañ sa xaar ba suba war nañ dugg ko raxas ko fonk ko mu mel ne suñu yëre yi ñuy sol bu tilimee dañ koy sumi fóot ko mais arène nationale après combat boo fa duggee da ngaa ndax fii lañ doon bëree ku nekk xam na ne y a trop de jaaykat yu fa nekk yu ko mais après salte ba doon et arène nationale ni mu toll dafa naka ngeen considéré gis ay dix sept personnes ni di nettoyer c'est pas possible foofu équipe la comme ni ngi net nettoyer assemblée nationale di ko yenn instituts yi nga xamante ne Sénégal moo ko moom bu nit ñi liggéeyee ba wàcc dañ fay dugg nettoyer ko polir ko ba mu rafet bu làmb amee noonu la war a demee bu ñuy sàgganee nag arène nationale bi fii quelque temps dinañ ñu paaka nañu yéen jël wutal dara parce que mi ngi mi ngi commencé délabré ci loolu lay taxaw ñenn ñi naan bëri mérité wuñ ko ñenn ñi naan ay ay dof lañu ñu baal ma ci kàddu gi. parce que li ñu gis foofu noonu la. parce que ñu daan la nga yàq ay chaise nga daanu nga yàq ay chaise loolu bëgg nañ xam lan mooy ko expliquer parce que indiscipline notoire la. mais en fait euh, xam nga tamit kenn mënul taxaw naan sama jeunesse dafa indiscipliné mais li ñu gis ci làmb indiscipline bi ñu gis ci sport ci làmb rek nga koy gisee. ku nekk ñëw def lo neex boo dee toog tribune A toog tribune B. loo lu bu ñu nee toogal fee ngay toogal fee te loolu sax nekkul sax booy ñuy supporters yi rek c' dans l' ensemble mbër yi même chose réseaux sociaux yi ñëw ki lamb gi day ñëw saccagé stade bi fees ko ba amateur duñu gis aussi loolu tam lu ñu war a wax la. aussi enceinte boobu dañuy gis ne enceinte bi rek lamb bu amee ñi fay ne nañ 500 personnes. mais voilà y compris yéen ñi nga xamante ne yaa ngi interview nii ah. site yëpp fa la ñu nekk mat nañu mat nañu 200. loolu yëpp organisation bi ci organisation bi la encore heureusement moment yi CNG mi ngi jéem focaliser wu ci li ñu naan chronogramme bëgg lamb ji teel a commencé mais madame s'il vous plaît naka la mbër nit di ñëwee toog di seen spectacle toog 15 heures ba 22 heures loolu amul fen ci àdduna ci lamb rek la am. lépp loo gis dafa am temps bu muy commencé ak temps bu jeex football am na ko basket am na ko loo gis rek bu jeexee jeex na mais làmb nag moo amul temps mbër ma day ñëw taxaw ci digg bi di sottee ko saafara lu mat deux heures de temps ñëpp taxaw di ko xool. waaw léegi maintenant yooyu sax wax nañ ci ba fu mu ne nii teg nañ ay ñu def jël ci ay xamante ne jël nañ ci ay décision yoo xamante ne décision yi rafet la loolu li ñu ci jël moom mooy mm. et eh, comme que bu njëkk nit ñi dañuy ñëw déménager cumukaay yóbbu ko ci enceinte mm. ñun de bi ñuy bëree suñu yëpp cumukaay bi la nekkoon nga jëfandikoo ko jëfandikoo ko ba mu des yenn yooyu raayoo nga dem ci biir géej bi raayoo ko mm. mais plus que temps bi dem nag gars yi di yokk mujj gi na léegi ay saaku ku ci gàdduwul saako sax dix mbër ponkalu mbër ku nekk gàddu saako boo xam ne mat na deux cent ngay gàngar gàngar set ko ci géej bi yaakaar na mooy te en général sax ñooñu ñu koy def dañuy daan ñu bëgg seen ay bitéel dul jeex donc nag foog ñu jéem a gën a moderniser ngembu sangu leen mais ci cumukaay la ci biir géew bu nag CNG am na nombre de bouteilles yu mu délimité ku ko bëgg a jàll doo ko mën a jàll parce di compter say butéel waaw bala ñuy compter say butéel kay te ñun butéel yoo xam nañ ko butéel biir gi yoo xam lu wax bii mooy butéel bi ngay mujj tuuroo doo ko bëre waaw ko fi ñaar fukki sëriñ waxee nag nga jël ñaar fukki yëpp war ko dugal ci biir bi nag doo ci xam ku mu doon waaye rek nag man maa la a bëree nga am fukki sëriñ ku nekk ne la bii ngay mujj tuuroo seetal ki nga ci gën a jubu mu gën laa neex gën koo wóolu nga yóbbu boobu tuuroo ko léegi wax mbër mi moom moom décision bi ça lui revient mais ça revient mbër mi lay revient parce que moom moo ko sotte ko moom moo dem ci sëriñ jaxaminka dem ci sëriñ ngoñaña dem ci sëriñ dem ci sëriñ dem ci sëriñ dem ci sëriñ ñëpp jox ko ko bii ngay mujj tuuroo bu ne mu teg ko bind ci dernier bain léegi nag nga teg dernier yëpp nag mu nekk fin nga ñëw ci biir bi boo ci sote ko. te CNG nee nañ mbër bu mag diis la mbër bu ndaw ñeenti butéel ak téye benn fii téye benn fii di sote kondo ndax sëriñ jug jug jug ak jag jag jag. ku ne loolu jeex na décision bi nañ leen mbër bu mag diis bu tey ngay indi. mbër mu ndaw cinq butéel mais voilà et puis ñu may la benn temps de 15 minutes de préparation pas plus. pour mbër mu mag pour mbër mu mag. mais voilà mais. Euh, mais est-ce que aussi. ah ils ñu respecter ko. parce que décision yi CNG di jël dafa bëri. mais moom mooy xam bu ñu la xasee ne la. 10 bouteilles ngeen di ci biir géej bi waaye 10 bouteilles mënoo ko utiliser minutes. donc yëpp bind ko jox ko écurie yi foog ñu jëfandikoo te ñi ko war a jiite sax mooy ñi nga xamante ne ñooy doyen lamb ji commencé ko ci Bombardier ñoom Gris Bordeaux Ama Baldé Modou Lô bi ñu tax a ñëw fii tey jii war nañ ko jëfee seen rakk topp seen ginnaaw ñoom lu ñu def rek seen rakk yi def bu ñu taxawee di sottee ko saafara jëmale suba seen rakk yi dañ naan uy ma sottee ko comme Ama Baldé wala comme Modou Lô pour mel ni Ama Baldé maa mel ni Modou Lô yaakaar ni gàllaaj yi mooy joxe ndam non ndam li sawaay ñoom xam ne Ama Baldé boo ko xoolee ni mu oose nii Modou Lô na mu oose rey nañ seen bopp ci waaye boo ko jëlee nag concentré wu ci mille fois la nga liggéey sax da lay réer man da xam mbë ndax mbëri daan wala entraîneur yooyu daan wala entraînement mooy daan euh, wala sëriñ yooyu daan benn phénomène boo xam ne mooy ñuy accompagner mbër yi dañoo yaakaar ne ñoom léegi ñooy star yi balaa ñoom géew gi tàmbali rek ñu dugg si ku nekk di wane boppam di yor lu kii bu butéel bi di sotteeku léegi xam nga lan la ma ko waral mbër yi en général écrit boo ci dem mbër yi entraîné seen biir du ñu ànd seen biir mm-hmm. seen yeen copain lañ am yu ñuy ñoo ñu ko pay nag ce jour combat yow ban mbër nga mën a yow mënoo ma limal yow ban mbër moo topp ci ginnaaw ban mbër kan mooy second ku ci toppaat ku ci toppaat bu ndëkk làmb mbër yi ngay àndal say morom yi ngay entraîneur ñoo yore say gàllaaj ñoo yore say lépp entourage boobu ñoo koy yore doo fa gis kenn ko sol caaya mbaa ko sol sabadoor mbaa ko sol jean mbaa ko sol casquette topp euh, feeñ ci kanamu caméra yi sotte ko joxoñ arrive à ce que sax ñuy xaañ ay mbër ci làmb ji yooyu yëpp xam tamit li ko waral moom mooy écurie yi ñoo war a mbër yi bëre ñun ñu souligner leen ñu xam ne ñii ñooy ñëw ñoo ñooy joxe gàllaaja ba léegi star yooyu nga wax ñoo ñu wane star nekk ci kanam jiitu sotteeku ñu naan diw moo xam sëriñ mu ci wut client moom ci boppam benn ñaar ba pare mbër yi ànd ak mbër ma duñu sa sentir à l'aise xool mbër yi boo seetloo seetloo leen ci biir lamb ji rek même bu ñu lakaat duñu ànd ak mbër kañu àndal mooy kañu àndaloon mu ànd ak ñoom Fadiouth ànd ak ñoom Joal ànd ak ñoom Kédougou mbaa mu wuti kii mbaa mu dem wuti affaire domestique alors que affaire bi c'est sport ak a jekk waaye nga taxaw yow mbër di bëree sa benn copain sa dara la ci sa droite kii dara la sa gauche kii ne sa ginnaaw photo yooyu boo ko gisee nga xam ne làmb nii woon mbër yi ànd nekk benn boo ci photo doo gis sa ad boo ci photo doo gis ko mu àndal écrit boo ci dem boo photo Bombardier ci moom laay commencé ndax moom mooy doyen des lutteurs doo gis mbër bu mu entraîné doon mu taxaw ak boo demee ci Balla noonu la nga dem ci noonu la nga dem ci Ama Baldé noonu la mbër moo ki dem rek ka mu la tax làmb ji doy waar jaga jonge mooy du ñu ànd ak ay mbër ñoom ñi def yi ñu def mu nekk tout temps mbër donc loolu tamit euh, lu ñu war a càmbaral la loolu nag defar bi nag ci écurie yi la. taxaw ci combat bi di amaa Baldé ak Modou Lo Ama war a dalal waa Parcelles yi. Hmm. Modou Lo arène bi nekk Pikine. violence boobu ñëpp ñu ngi craindre est que combat boobu dina àgg a gis avant signature comme contrat yëpp ba oui en fait li ñu leen di wax mooy tey jii ah, ñaari mbër yi am nañ ci rôle bu rëy bu ñu war a joué muy Ama Baldé muy Modou mais nag dañu gis ne excitation beeg bougement bi cëpp nag ngay gis ne kon ci côté Ama Baldé la gën a xaw a feeñagum. parce que ñoom la Modou Lo di ñëw di def signature de contrat am nga taxaw def ak moom face. loolu nag. dañ koy wax di ko waxaat pour ñooñu ko defoon bañ ko defati ndax Modou Lo moo amal njëriñ Ama Baldé Ama Baldé amal njëriñ Modou Lo coow li ñu bëri bëri yëpp bu ñu daanantee ci saa si la ko ne dem sa yoon c'est le sport amul mënuñoo bañante ñoom ñaar dañoo war a daje ci benn groupe takkusaan kenn daan morom mi après làmb dafay doxaat revanche war a mën seen biir ñu bëri ko donc ñoom ñoo war a protéger sax ñoom violence bi ñoom yi bëri imagine toi tey jii combat bi ñoom trois ans maa na ko léegi ñu ngi mi ngi traîner waaye bu ñu demee ba ci biir làmb gi tey jii seen supporter am comportement boo xam ne làmb amul. mel ni Siteu Papa Sow imagine toi que fu ñu jëm. kon loolu benn affaire la ñoom ñoo ko war a sàmmal seen bopp ñoom mbër yi nga xam ne ñooy leaders yi di jiitu. mais communication moom Ama. c'est important demande nañ ko léegi wax waxtaan na ci tey gis ngeen ne depuis que mu def premier face à moom Modou Lo ñoom ñaar ñu jàkkaarloo ñoom ñaar ku nekk xam na ne lii nag ah lii mooy dëgg dañuy bëri ji. déggat déggatoo violence déggatoo coow déggatoo bëri gëm naa ne tey jii Ama Baldé ak Modou Lo war nañ mën dem buntu kër Ama Baldé def fa conférence de presse te dara du xew Ama Baldé protéger Modou Lo Ama Baldé dama dem ba buntu kër Modou Lo def fa point de presse Modou Lo ko loolu mooy làmb ndax dañuy daanante sax dem di seetaanti gis nga xam ngeen leen loo xam ne xëy na gars yi bari comprendre ñu ko gis nga xam ne mbëri suñu daanante daanantee bala ñuy kontaan bala bala ñuy féex moom mbër mi daan bu demee ba kanam li ñu njëkk a def woo ki mu bëree loolu yàgg na gars yi di ko defante nga xam ne kon relation bi ñu seq ñoom moo gën a fort ay ñoo xam ne seen yoon ko ci à part supporter seen mbër daan ñu kontaan ñuy xaañaate ou ñuy dajje ay ay ay chaise ou ñuy saccagé beneen mbër bi. loolu bi fi ñuy jeexalee mooy combat bi nga xamante ne mi ngi ñëw dimanche bi diggante Reug Reug ak Gouye oh. lan nga ñëw. Reug Reug Gouye Gui vraiment c'est un combat de rêve ah combat de rêve nag mënut a weesu euh, Reug Reug Gouye def na carrière boo xamante ne dafa exemplaire. wane boppam depuis jeune lutteur guy gi nag bu ñu fàtte ne dafa bokk ci mbër yi rampé ci combat yu njëkk yi di benn bennal di benn bennal ba nekk bokk ci eh, les grands champions bokk nekk mbër bu saf xorom. mun ambiance mun làmb nekk nit yu kese nag guy gi boobu bu dul làmb boo dajee ak moom doo xam ne kii mbër la. am na xale bu jóg nag nekk ci bëri simple yi doon na bëri aussi ci papam nekk champion d'Afrique nekk champion traditionnel ji làmb gi teg ko ci loxoom gars yi mënuñu ko daaneel. ba xajatu fa mu génn fa ñëw ci arène bi lool nag cosaan la mbër bu mu saa nekk ci mbëri simple di daan di daan mu jig dañaan ko dootu fi fi bëreeti nga doog a dem ci arène bi bi mu ñëw ci arène ba léegi tam fa ngi wane ay na sax ba dugg ci sport boo xamante ne ñi ci bëgg a dugg néew nañu muy MMA bi donc am engagé moom moom kii nga xamante ne mooy rëg-rëg expérience boo xamante ne war ko mën nit ñaa ngi séntu mu bokk parmi les plus grands champions de ce pays loolu nag moom jagle yàlla lay doon waaye moom gis ku ko gis bindam gis ni mu taxawee xam nga ne kii bu ko yàlla mayee guddi fan dina bokk ci gars yi guy gi nag dafa war a ñaa xam nga ne làmb nag bu ñu koy séddalee ajaa war nañ ko séddalee ci ki nga xam ne dafa confirmer tey jii chance bu rëy la pour Reug Reug dem bëri guy gi léegi bu Reug Reug croisé na gurément guy gi kon Reug Reug bu guy gi ne woon burément Reug Reug guy gi borom sempi su ne bëréo maag ku Reug Reug di bëreel dafa taxaw bokk ci mbër yi galéré mais bii ubbeeku kaay la pour Reug Reug yokk manoore la pour pour ki nga xamante ne moom mooy moom mooy guy gi guy gi nag mbër mu bu imprévisible la jour bi nga ñëw du ko yaakaar naan ñoo ko mën a ñoo ko nangam ci la mën ñoo def jaloore il faut gars yi def très attention mën nañ jox favori Reug Reug ci jeunesse am ci compétition am ci fugga bi corpulence bi ndax am na lu ko Reug Reug ëppale quand même ci ci ci ci masse forme physique ëppale ko ci jeunesse ëppale ko ci gën koo gën koo war a bëgg affaire yi ndax bu leen jaawale mbër mi bëgg mbër miy doog a ñëw bëgg a doon champion dafay am toute différence ak mbër mi nga xamante ne am na confirmation jusqu'à quatre-vingt-dix pour yu gëm-gëm yeeg bëgg-bëgg de kii moom guy gi àgg na ah. guy gi vraiment dem na du ma ne àgg na au sommet mais fu mu àgg ci làmb mbër mu ko àgg ba sant yàlla chance chance boobu may may ko pour ñu daan ko tax guy gi ma gis nii il est très sérieux dans ce qu'il fait fa bëgg eh, mais guy aussi ay combat lay guy gi ay victoire ay victoire ay ndaanaan la fi daan ah. donc tey jii moom mu perte komba bi sax tey jii lim koy waa ngi xaw a bëri moom guy gi waaye nag doon na gën a garaaw nag su guy gi daanee rëg-rëg su guy gi daanee rëg mooy ah guy gi marqué na point boo xamante ne bu ko fi kenn sonal te nag di ko toppatool ay genre genre rëg-rëg dañ ko toppatool ay genre les bombardier ay genre les Gris Bordeaux ay genre les Modou Lô ay genre Ama Baldé ñoom Lac de Guiers ñooñu lañ ko war a tëkkaleel bu bu jege ci combat bi même bu jegewul sax fa la war a bëree bëri naa Tapha Tine naa Ama Baldé ñaari yoon bëri naa gars yi moom moom moom moom moom moom guy gi il a marqué son temps te gi dafa bëgg a confirmer ci kanam koo xamante ne nag ah daj dëpp la confirmer ci kawam nag lu jafe lay doon jafe lay doon ñu terminer ci combat boobu nga xam ne moo si topp le 27 mars diggante Bombardier ak Eumeu Sène ñu gis ni Bombardier ba tey bàyyeegul moom mooy doyen de l'arène mais ñu gis mu prouvé gis nañ ko ci diggante moog Balla Gaye 2 tey muy war a jëlaat revanche pour Eumeu Sène loolu ban jàngat nga ci am. damay gis ne dama bëgg rek répété waat ne Bombardier mu ngi mi ngi mi ngi bind ci page histoire Sénégal ci wàllu làmb loo xamante ne mbër di ko. attention li fi nar xew kenn mus ko expliqué mbër bu bëree kuñ fi musaan wax 45 ans jot na ñibbi nga. par force nga dem di kaas naan mën naa bëri mën naa bëri mën naa bëri test bi ñu jaaxale ci moom tey jii prouvé na contre Balla Gaye indi na fa état boo xamante ne man gëj naa ko gis ci Bombardier wax nga ko wax naa ko itamit tey jii mu ñëw di war a jël si encore dafa am double enjeu dafa war a jël si revanche am ci ki ko ki ko détrôné woon jël jël jël drapeau a des arènes te mu mën ci am victoire aussi. parce que Bombardier amul mbër bu mënul daan carrière am définir na ko mais kan lay dajeel koo xamante ne c'est un artiste Eumeu Sène c'est l'artiste des c'est l'artiste des artistes moom buy bëri sax day fo bu la songee bëree boo ko songee mu bëri donc Eumeu Sène aussi da jël ci moom titre bi perte titre bi bëgg a ñëw nag pour xëccoo jiwaat bi moom xëccoo rek la. bu amee victoire mu Eumeu Sène da koy yóbbuwaat ci mu am rëbëloot ba ku jël. li nga xamante ne mooy euh, euh, combat royal bi ah mooy est-ce que muy Ama Baldé bu ko jëlee moom c'est pas possible parce que problème la di expliquer ne boobu ñoom ñaar bu ko nangoo bëri rek moom mooy combat la de rêve ay ndaanaanu bërikat lañu Bombardier ne dama bëgg a gën a sax ci moom ne li mu bëgg a def bu ko defee mooy dinañ ko bindal dama ragal sax bu ko defee ñu tuddee ko arène nationale bi parce que amul benn mbër fu am 45 ans continuer di bëre. aussi mu nekk deux fois roi des na troisième bi c'est une kon àddina tukki kon bisimilah en ñu daal képp kuy bëre yéen nañ la nga def un pas ne say say NM marqué wuñ ko woon. ni ñu koy yéene aussi noonu la ñu koy yéexee émission émission aussi bu leen mi gën a sonn ci arène bi ci la bokk. mbër mi ëpp ay coupé mu jël ay bakkan yu toj ak ay bët yu toj la bokk mbër mu rampé nag yéex a dog dégg daal yi te ñëpp xamoon na daanoon bërikat la waaye ba jotee ñëw na ci moom donc ñoom ñaari mbër yëpp ay référence lañ ci làmb ay mbër yoo xamante ne bariwuñu histoire bariwuñu xuloo doo nañ ci benn làmb ñu ne Bombardier ko yàq est-ce que mos nga ci benn làmb ñu ne monsieur ko yàq ñoom ñaar ko ci seen defee day reetaan ñoom ñaar sax ñu bëggee dañuy fookaree rek dañuy ku nekk bëgg daan sa morom donc vraiment c'est un combat concentré wu ci xool ko te xam ne c'est a fait partie des l'un des meilleurs des meilleurs combats yi nga xamante ne moo am saison ren bi. effectivement père kontaan nañu lay jaajëfal aussi. maa ngi lay jaajëfal leen wax salaamaaleykum wa rahmatullah. merci beaucoup chers internautes di leen jox rendez-vous incha allah ci yeneen